d'accord tey euh, li ñuy décrier am na wala amul. c'est que man damay euh, laajte ndax ñoom dafa am RTS bu ñu nekk bu bokkul ak ñun bu ñu nekk te je profité de l'occasion pour remercier Diallo mi ak euh, chroniqueurs yi fi nekkoon démb parce que à la fin nee nañ leen yéen bu dee yéen a yore majorité na journal télévisé taxaw. na rajo yi taxaw dama bëgg dama bëgg ñu wax ma lan moo am RTS mhm. c'est la question que je me pose mhm. même ñun nos parents suñu mbokk yeeg yi dañuy woo lan moo xew RTS fukki chaîne ak juróom-ñaari rajo yuy fonctionné mhm. man ma liggéey ba wàcc ñëw fi tey ci émission bi Walf TV Babacar Ndiaye nekk RFI wàcc tey ñi dem mission ñu ngi dem mission di def seen ay reportage mm. kër gi mi ngi ñu ngi liggéey comme nu mu waree les salaires sont payés Attends. même léegi le 27 le 26 27 ñu fayee ko suñu li ñuy wax ci wàllum faju ñun fu ñu dem dañuy faju mm. suñu njaboot même chose léegi dama bëgg a laajte parce que en fait même quand je regarde les réseaux sociaux hier quand j'ai regardé votre émission man sama bopp dama ne ndax RTS laa nekk jàmm ak salaam moo fa nekk ak sax yokkute yokkute mm-hmm. parce que bu defee jàngat ci li fi amoon ak li fi am mm-hmm. actuellement mm-hmm. dañu am yokkute am na mbir bu mu wax léegi-léegi mais yokkute bi est-ce que amul si euh, benn euh, pàcc bu mu féete am ñeneen ñoo xamante ne dañu. ñoom ñaata lañu leen léser nga dégg si réseaux sociaux yëpp ñaata lañu. waaw ñi def conférence de ñi def assemblée générale def ay communiqué de presse. woo agent yi. Mm-hmm. munoo am vingt agent sa dernière conférence de presse nga dem fi nga xamante ni foofu nga affilié nga defee ko fa. Mm. pour mu étroit léegi ban RTS lañ nekk ñoom. d'accord. Euh, Pape Matar euh, tey jii démb nekkoon nga ci plateau bi bi intersyndical bi di ñëw également euh, tey mu nekk potum biir néeg boo xamante ne dafa génn fi nga xamante ne moom moo di ci place publique bi ci kër goo xamante ne dañu ne télévision nationale. waaw li ma ci lu ma ci njëkk wax rek mooy en fait que. effectivement démb maa ngi ci plateau bi mais ñu fi toogoon démb lu ñu doon gën di wax ay problème de gestion la parce que yaa ngi wax waxu IPM ñu ngi koy fay mais ñoom ils soutiennent et loolu aussi question la boo xamante ni ñu bëri dañ koy laaj est-ce que tey jii RTS mi ngi fay IPM est-ce que tey jii RTS mi ngi fay ñi nga xamante ni aussi IPRES la parce que aussi ay question la yoo xamante ni euh, syndicaliste yooyu noonu nga tudd ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy soulever te sénégalais yi bëgg nañ ci xam lu leer beneen mbir bi wax na ko léegi sa à dire awa mënoo demander assemblée générale pour renouvellement ay instance ngeen dem élection ñu gagné leen defoo leen appel ci cour suprême ba noppi ñëw di naan ils ne sont pas légitimes wala du dëkk. Euh, Babacar wax na la Babacar wax na léegi nii Babacar wax na la léegi nii ils sont légitimes ils sont légitimes. waaw ah, d'accord donc booy posé seen légitimité seen légitimité ñun waxuñu seen légitimité xam nga xam nga Babacar lan la doon bëgg wax Diallo doomu baay dama lay baal ma rek. Uh-huh. parce que comme da am ay laaj. Uh-huh. en fait daf doon ma ci IPRES bi ak IPM ba pare. IPRES ak IPM. Mm-hmm. dama ne IPM am na fu muy toll kenn du mm-hmm. fajooti. Mm-hmm. kon ren RTS mais dama ne daf la laaj man demuma sam sama njaboot njabootu Babacar ak njabootu agent yi kenn oh. demul ci benn l'hôpital ak benn clinique. Mhm. ak benn bërëbu kër docteur. Mhm. boo xam ne ña ngi fay faju ñu ne la on ne prend pas la RTS. oui sa mhm. bon de pharmacie. boo paree. boo demee di ko jël jëli tamit. amul benn pharmacie bu ñu la naan doo fi jël benn paracétamol. d'accord d'accord euh, euh, ma laajal ko beneen laaj da koy développé. waaw mutuelle sociale bi. waaw waaw mel ne ren joxewuñu ko de. ren ren joxewuñu ko. laaj nga leen nan lañ koy organiser ñoom. ñoom waaw laaj ko. laaj nga ko non non man ñun agent yi ku si nekk. ñoom syndicat bi ñun agent yi ku si nekk. Ah, mutuelle sociale du tàmmoon non dama ne ñoom agent yi ku si ñun dañ ñuy dagg. Mhm. à la fin du mois à mhm. donc ils ont ñoom nañu xam lañu lañu wax lan fan lañ déjà ñun suñu mais Diallo Diallo dama bëgg nga wax ma nga tontu ma c'est une bi jox na leen prime tabaski mais ñoom ñoo ko gérer prime tabaski mhm. non joxe wuñu joxe wuñu prime tabaski ok joxe wuñu prime tabaski joxe wuñu prime tabaski non en fait pourquoi ngeen di wax euh, prime mais a déggante également mooy li nga xamante ne dañ la koy jox muy yow loo xam danga koy dugal sa poche yaa ko moom loolu mooy prime gis nga ni ñu joxe avant ni ñu uh-huh. joxe avance su tabaski. non dama ni ñu joxe avance su tabaski. c'est ñoom loolu ñu lay wax noonu dañu ko doon boole abal ñu ko uh-huh. dagg ñu ko. Uh-huh. il faut être clair aussi. li ma li ma doon wax rek en fait c' dire bu ma nuyee légitime parce que ñoom nee nañ ñooy ñan ak seen représentativité. Mm-hmm. bu ñu posé problème représentativité on pose problème de légitimité. Mm-hmm. tey ñu organiser élection à leur demande ñu ne dañu bëgg renouveler ay instances ñu dem élection yooyu noonu ñu gagné leen mais je pense que ni waruñu woon te dégg naa aussi que ñoom dañuy organiser waat ubbiwaat beneen syndicat boo xamante renouvellement instance c'est-à-dire dafay poser problème en fait bu nekkee yéen da ngeen aussi représentatif nan ngeen def ba élection yooyu ngeen ñàkk ko bay obligé waat di demande di créer waat benn syndicat. ok et problème yi nga xamante ne aussi yaakaar naa ne ñoom dem bañ toogee fii wax nañ leen ko dañ leen koy wax. c'est-à-dire yéen ay agent RTS ngeen. est-ce que d'accord de la manière tey jii bu ñuy gérer RTS RTS bu ñuy def tey jii. à 200 pour cent. à 200 pour cent. Euh, donc yéen da ngeen jàpp ni 200 pour cent ngay wax. à 200 ngeen jàpp ni da jàpp ni kon RTS daf fi war a nekk pour un clan pour, pour un une clan. famille yow yaa ngi wax waxu mandat bu jeex bañ ko war a renouveler mm-hmm. alors que votre DG quatre ans mi ngi nii dem na retraite te ba tey dégguñu kenn si yéen ñi taxaw ni DG bi dem na retraite daf fi war a jógee alors le DG est-ce que le DG de la RTS est un agent de la soit d'ailleurs façon bu ñu ko nommé vous êtes des employés boo gisee ni kii fi teg amul légitimité bi wala waratu fa toog parce que sur le plan légal dem na hmm. retraite yéen aussi waroon ngeen mën a jug taxaw ni ko monsieur le DG interpeller directement le président de la République ni kii fi nekk tey jii il est illégitime il est illégal parce que war na dem retraite depuis quatre ans mais ni ngeen ko defee ci renouvellement instance yi defee ko leen et puis boo ñëwee vous êtes d'accord à deux cent pour cent hmm. ci la manière dont RTS le peuple boo nuyee le peuple tey jii manifestation bi nga xamante ni. ay nit dañ koy def non non non man je pense parce que démb. j'ai suivi l'émission vous parliez de censure sànq ba ngay respect dama ne ah, vous parliez de censure uh-huh. mais là quand on parle uh-huh. de la gestion de la RTS uh-huh. et du directeur général dafa am lu ko fa n'est pas un fonction n'est pas fonctionnaire euh, boo xam ne dafa ñëw RTS embauché ko. Mhm. il a été nommé par un décret présidentiel. waaw après ñu avancé am parce que ku nekk sa problème ngay wax man sama problème mooy RTS bi nga xamante ni suñu poche la ñuy jël di tibb di leen jox yéen ñi nga xamante ne agent RTS ngeen. Ah. RTS boobu bañ a doon benn euh, organe de propagande parce que RTS boobu tey jii waroon na mën a dugg ci askan bi ba tey ji RTS ñu koy seetaan malheureusement la RTS n'est pas suffisante. la preuve. loolu yow la preuve ça c'est pas moi qui le dis ça ma jox la benn fan ko wékk bàyyi ma wax la ko. xam nga Awa Diop fan laa ko wékk. bu ñu demee ba président de la république di jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñu koy diffuser à la RTS et au même moment ñuy jënd temps d'antenne ci yeneen télé yi c'est parce qu'ils sont sûrs que ni bu jàllee RTS kase duñ ko seetaan. bu nekkee RTS dañ koy seetaan. je ne vois pas l'utilité je ne vois pas l'utilité mais nañu dégloon te pour mu mën a kii parce que da ngeen décembre. je suis def face à la presse dañuy jënd temps d'antenne ci télévision yëpp moo koy jënd. si la RTS était très bien suivie Macky ne serait pas dans l'obligation di jënd ay temps d'antenne di obliger nit ñi ñuy seetaan li nga xamante ne mooy face à face boobu muy def ak la presse. d'accord dinañ fi ñëwaat à ce duel bi nga xamante ne moom moo xew ci biir kër googu di RTS euh, tey jii euh, syndicalistes yi dañu génn la direction a jugé nécessaire également d'apporter la réplique euh, tey jii est-ce que ci kër goo xam ne dañ ne c'est pour les Sénégalais également war nañu seetaan duel bu mel nii di fa prospérer. bon merci Awa xam nga débat RTS bi c'est pas un débat bi nga xam ne il est nouveau RTS depuis naguère tout le temps directeur yi fa mës a jaar yëpp. dañ doon am problème ak les syndicats d'habitude mais pour la première fois laa la wax pour la première fois genre situation bu mel ni am muy que ce n'est plus un syndicat qui a un problème avec la direction mais c'est plutôt un syndicat qui a un problème avec la direction et en même temps une autre partie du personnel donc loolu je crois que c'est un fait assez inédit te li ko indi daanaka je dis li ko indi daanaka mooy que boo xoolee plateforme ñii fi jaar démb mooy euh, l'intersyndicale seen principale préoccupation ñoom ça s'est porté sur la gestion de de de la boîte de RTS. Mm. tey yéen je crois que vous êtes une autre entité beneen syndicat su ma juumul su ma juumee ngeen rectifié ma en même temps vous êtes de la direction générale. vous n'êtes pas de la direction on générale. Est des, on, est des, on est des travailleurs de la RTS. De, de la RTS Non, comme les autres aussi sont des travailleurs de la wow, RTS. Non, Non, non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est-à-dire, moi, moi, moi, moi, vous me rectifiez. Voilà, moi vous me rectifiez. Donc, voilà. Je vous Donc, Taïdi, aujourd'hui, mm-hmm. je dis que la principale préoccupation du personnel, bien que RTS, il y a une jusqu'à ngeen euh, démarqué wu c'était la gestion de la de la de la RTS yow wax ngeen fii tey ji avancé yi nga xam ne moo am foofu am na ñi nga xam ne ñi ngi foofu ci kër gi te tey jii ñooy syndicat majorité ñooy intersyndical majoritaire bi nee nañu ñoom avancé yooyu gisuñu ko hmm. donc yéen a gis loolu tey donc la principale problème le principal problème tey jii hmm. mooy nga xam ne li nga xam ne yéen waroon ngeen ci d'accord ci benn mooy lii nga xam ne mooy problème bii nga xam ne moo indi distorsion moo indi féewaloo biir RTS mooy que y un directeur général bi nga xam ne lañ ko nommé woon moom geexal na pàccam geex na dafa war a dem loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci bu dee nag tey jii yéen en tant que qu'agent de la RTS waxatuma sax waxu syndicat waxu agent RTS yéen ngeen mun a nangu ni que malgré que waa ji retraité na nangu ngeen yéen mu toog fa parce que yéen ce n'est pas de votre prérogative mm-hmm. kon nag war ngeen mën a nangu njële mm-hmm. seeni prérogative ñu kaas ni que kii leen jiite mu ngi leen di jiite d'une manière illégale ah. donc loolu ngeen war ko mun a nangul ñooñu. nangul leen loolu. ngeen nangul leen loolu. d'accord ci kaw. ñu ngi mhm. nangul dara. xam nga euh, mon cher y a un problème qui se pose à la RTS et le problème vous savez hmm. c'est quatre personnes qui veulent ligoter la RTS qui veulent encagouler la RTS muy l'intersyndicale les deux personnes qui sont passées par là. l'autre qui est passé à à loolu lañ ko doon wax de. kan Lucky Patrick Mendy. waaw moom kooku ko waxaale xam bi mu nekkee fii tamit loolu lañ ko doon jiiñ. ni ko dafa bëgg a non Lucky Patrick. c'est un vieux qui va à la retraite sous peu. Mhm. des retraités bu leen ko fi wax. yéen moom ay retraite moom. comme euh, seen des retraités la Pa Matar Pa Matar Pa Matar accepté la démocratie accepte ça aussi accepté la démocratie dañ ko accepté uh-huh. mais on décret présidentiel. Mmh. qui maintient notre directeur général là-bas. non qui le maintient. mais ah, il est nommé par un décret, décret. présidentiel. Oui. vrai ou faux. Ouais. léegi moom est un décret boo xamante ni dafa dem ba nekk. il combien de directeurs généraux qui sont ici au Sénégal on parle de la RTS. non dama ne. on parle de la RTS il y a combien de directeurs généraux qui sont ici. on parle de la RTS y en a mais c'est vrai que vous êtes euh, vous avez été promu récemment. qui c'est. yéen ñi. on a été. promu da ngeen am ay promotion. Euh, ça veut da ngeen am ay promotion promotion de quoi jógee ci benn stade dem ci beneen stade. Euh, comme on fi jógee démb. ah comme ñoom ñi c'est des questions que les gens. waaw Babacar man man yéen ñaar na di wax pour affaire yi a le débat non on ne personnalise pas. non Mata je pose des questions. je demande seulement. Diallo vous avez été euh, problème personnel. Papis du waaw Papis li ngeen ne du problème personnel. waaw euh, yéen a ngi ko euh, si entame bi ndax da ngeen jël ñaar ñële am foo leen euh, catégoriser. man ba donc am na foo leen personnaliser. mais tey jii le problème mooy. je suis dans un autre style. si. man déggoo ma ba tey. ma uh-huh. tudd nit. déggoo ma ba tey man personnellement. mais vous représentez qui. ma attaqué ma attaqué nit. non attends non non mais tey jii tey jii Pape Cheikh wala la RTS. mais maintenant. mais vous avez euh, mandat pour représenter la RTS. mais maintenant maintenant vous avez aucun euh, mandat pour représenter la RTS. léegi euh, Diallo mun nga ma mun nga ma wax mun nga ma. mais ko mais débat débat dañ ko war a arrêter parce que s'il ne représente pas la direction. ñoom amuñu tey jii benn légitimité de représenter les la direction moo leen yónni wax lu tax ah non léegi dinaa la wax lu tax wax ni la direction moo leen yónni dinaa la wax lu tax léegi la direction vous a envoyé ou pas je vous dis Diallo Diéry. Euh, <laughs> Diallo Diéry sama doom baay bi donc je vais dama lay wax benn mbir. Euh, on tranquille mhm. dafa am loo wax Pape Sané am Pape Pape am lu mu wax. Mhm. Euh, moom mu wax ni au que ñun ñu def recours defuñu recours mais dañoo dem Kaolack. créé fa beneen syndicat. Mhm. histoire bi demeewul noonu. Mhm. il faut que ñu waxaat ko mu suñu mbokk yu ñuy seetaan xam lan la. Mhm. dañu ñëw comme ni ko Babacar wax Babacar daf la expliquer moom ni ñu def ci kër gi au niveau de Dakar pour tout simplement élection am Dakar damay laajte ndax mooy Sénégal. non wala Dakar. ci la euh, région wu Sénégal. loolu lay laajte. c'est une région. c'est une région. voilà donc Pape. Mm-hmm. au niveau de la RTS il ya a 17 chaînes de radio. Mm-hmm. les trois sont à Dakar. Mm-hmm. les 14 sont dans les régions. est-ce que léegi di ngeen d'accord nit ñëw taxaw def ñaari RTS RTS su Dakar ak RTS su région yi. loolu moo fa am ci ñooñu ngeen di wax d'abord ñoom dañu demoon ci table de négociation ak directeur général li tax mu taxaw c'est une close de mobilité bu déggee close de mobilité moom mooy madame mii nekk fii tey suba mun nañ ko yóbbu mu nekk Thiès ni ramatulaay Sarr jógee Thiès ñëw dakaar keneen jóge fii xalifa nekk Thiès keneen nekk Thiès et cetera mooy que agent yi loolu la ñuy wax équité territoriale mm-hmm. moo tax ñoom seen négociation ak direction général taxaw pour bañ génn Dakar benn mm-hmm. c'est même manquer de respect aux agents de la RTS qui travaillent dans les régions mm. ñu demati je vais raconter aujourd'hui ñoom ñu xam ni que damay def benn parallélisme le syndicat qui fait une tournée nationale soi-disant loolu lañ paragraphe à Dakar mhm. pour aller dans les régions et qui vient c'est à peine si même le chauffeur mu ngi fay oto bi c'est-à-dire ils viennent dans les régions fu ñu dem def ñu réunion taf-taf on n'a même pas le temps bu war pour poser les questions yu ñu bëgg xam lépp li xaw et je vais vous dire quelque chose ñoom dem nañu sax dans une région un dimanche ñu fa agent yi ñu jël le technicien enregistré ñoom lu ñu bëgg a wax ak agent yi mu tegal leen ko le lundi ba tey baax na. et les agents n'ont pas été avertis. non Babacar ma dem rek ba tey baax na ñu dem élection alors élection renouvellement bureau man maa ngi doog gis sama àdduna un bureau sortant qui dirige des élections du début à la fin <laughs> man maa ngi koy doog gis sama àdduna parce que quand même en dehors de la on a on a milité dans plein de choses. xam nañ luy élection. da ngay ñëw tu présentes un bilan tu démissionnes n'est-ce pas. il y le représentant du benn qui est là. ñu organiser ko vraiment de manière très démocratique. Mm-hmm. mais type d'élection bi ak moo nu ñuy sax ñoom ñoo ko imposer. ñoo ko imposer. alors je vais vous poser une autre question à Pape Sané yow moom dama lay déglu yow moom bàyyi la ñoom ñaan ñu ne laa wax Sané ak <laughs> Diallo. est que pour des élections syndicales les radios régionales doivent fermer et tout le personnel venir à Dakar. et voter pour voter. pour voter c'est pas possible parce que dañu am seen autonomie de fonctionnement. Mm-hmm. n'est-ce pas. Mm-hmm. aujourd'hui Walf Thiès ne peut pas fermer. Mm-hmm. day continuer di émettre même s'il y a un truc à Dakar on va prendre une ou deux personnes. de là-bas ñu ñëw. représenté représenté alors on a dit maintenant comme ñun régions yi ñun ñëpp mënuñu déplacé wu déjà yow ñu ngi la wax clause de mobilité nga bañ kenn bëggul jógee si Dakar dem si région yi comme yow yaa gëm gën Papis Diallo bu nekk Thiès wala yow yaa gën Massamb wala Mademba bu nekk maatam wala bu nekk Ourossogui wala bu nekk feneen quoi donc ñu ñëw ñu ne léegi les autres agents ont signé de procurations pour ñu bàyyi leen ñu wote mais ça a trois heures d'horloge et même le gars du Ben est venu en sauveur mais moom si boppam dafa mujj wax les candidats ak nangam sangam on a pris trois. non attends non léegi dama non dama lay wax pourquoi ñu créé ah. syndicat bi non déglu ma. pare guma même Diallo pare na. yow xam nga yow tu es dans le truc chaud moi je suis. Euh, non non non non léegi ñu jógee foofu awa ñu jógee foofu awa may ko une minute non non may ma ma yeggali ñu avancé may ma yeggali wax ni c'est insensé parce que non non du loolu c'est insensé parce que bu nekkee élection yi da nga tourné teguñu teguñu ko fu ko war a teg non non du ma ko nangu parce que amul tax du ma ko nangu da nga tourné ne mhm. ñun demuñu recours mhm. ba pare dem créer mais c'est ça dem ngeen recours waaw léegi déglu ma def ngeen recours cour suprême mais attends un syndicat le syndicat c'est une adhésion waaw yéen fan ngeen affilié wu sax agent bu ñun une charge. déet ñoom dañoo bañ de. ñan ñoo bañ. waa une charge. ku la wax loolu. waay waay information yu leer laa yor. waaw ah, waa une charge ñëw. présider présider loolu. d'accord amoo leen benn amoo leen benn mais d'accord tey jii xam nga tey jii. non léegi dama non xam nga man man loolu. foog ma terminer ko waaw Papis daane la daane la daane la. Ah, même même même agent wu même. non euh, Babacar. même euh, Papis daane la même agent wu RTS su région yooyu. même agent yooyu ñoo tal centre bi muy Thiès muy Kaolack ñu organiser fa. parce que ñoom ils ont voulu envoyer enlever suñu dignité ñun. waaw d'accord léegi ah, Pape Sané man ah, non la nga xam ne Papis man man léegi yéen. benn objection. à ce que. ki nga xam ne retraité na. toog fa toog ba diriger amul amul leen si objection. non man ah, non non je non non je pose que ça fait des des des des des et je pense que je pense que je pour défendre intérêt. Mhm. travailleurs yi. Mhm. soo génnee doo régler problème crypto personnel. crypto personnel waay. d'accord.